Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ya. ñuy siiw ñëpp sen sen euh, sama xalaat professeur ñu ngi nuyu di la ziar. ñu ngi fay sëñ Pape. Euh, professeur plante la semaine tey euh, garab gi nga xamante rose di désert lañ ko tuddee. Mhm. lañ bëggoon soo nga soo ñu ci mënee baaxee ay njariñam ci wàllum wér-gu-yaram ak nuñ koy jëfandikoo. waaw liñ ci mën wax Pape rose du désert am nañu ko tuddee faux baobab waaw xaw a niroog. niroog nañ <laughs> kuy waa <laughs> am na ñu koy woowee tamit baobab di chacal. Mm-hmm. donc mën nañ ko woowee noonu. Mm-hmm. donc mu nekk garab goo xam ne dafa baax ci li ñuy wax virus. Mm-hmm. lépp loo xam ne virus la donc c'est antiviral. donc virus yi baax na ci moom. mais aussi anti cancéri cancérigène la aussi. loo xamante ni baax na ci affaire cancer ak yu demee noonu. antioxydant la moom it baax na ci mais aussi cicatrisant la. donc da ngay gis ni kon baax na ci yu bëri yoo xam ne mën na ko faj. lu mel ni acné mooy picc yi kanam yooyu. moom it baax na ci. Mhm. walla lu mel ni ay anti age anti âge waaw. nga xam ne seen karam yi day gaaw a ras wala yu demee noonu. Mhm. donc moom day hydrater day hydrater la da maanaam day joxaat day dekkalaat. Mhm. Euh, yaram yaram deru yaram deru yaram bi da koy dekkalaat daal daf koy dundalaat. surtout ñi nga xam dañoo am euh, deru yaram bu wow. peau sèche am na ñoo xam ne seen der yaram mi dafay wow mhm. boo ko xoolee nii day mel ni lu am ay trait trait mhm. ndax wawaay moom it da koy dekkal da koy dundalaat bu baax dëgg la donc day prévenir les rides maanaam ras-ras yi nit ki am oh, oh, oh. ci yaram beeg yooyu da koy dindi bu baax lool dëgg la da yi nga xam ne dañu am problème mu digestion aussi mhm. daf koy saafara ñi nga xam ne dañu am problème mu fertilité. maanaam ci am jafe-jafe ci wàllu doom. am ne xëy na doom jafe na leen. moom aussi baax na ci bu baax. ñi nga xam ne aussi dañu am problème accouchement. Mhm. donc bu ñuy accoucher day day jafe. Mhm. ñoom it euh, bu ñu amee garab googu baax na ci ñoom. Mhm. bu fekkente ni tamit ñi nga xamante ni xay na bu ñu nekkee en état mu gaaw a wadd tuuru bu demee noonu wala fausse fausse kii nu mu tuddati fausse couche moom it baax na ci ñoom ñi nga xamante ni sax dem nañ ba ci am na yenn rapport yu ma liir yu ni malade mental yi. Mhm. baax na ci ñoom maanaam baax na ci wàllu xel yooyu. Mhm. aussi baax na ci ah, ah, stress ñi nga xam dañoo dañuy amee stress bu bëri. Mhm. suñ koy jël baax na ci ñoom. baax na ci ay lu ñuy wax toilette intime. maanaam jigéen ñi nga xam ne ba ci góor yi sax jigéen ñi nga xam ne surtout. mën nañ ci raxas seen kanam daal. xam seen kanam day am infection wala yu demee noonu. suñ koy jël baax na ci ñoom. baax na ci ñi nga xamante ni dañ amoo feebaru sëqat mhm. euh, moom it buñ koy jël baax na ci ñoom dëgg la moo xam sëqat bu wow la wala bu tooy sëqat bu mu mënti doon mhm. ba ci genre tuberculose sax ñi nga xam ne dañu am genre feebar yooyu mhm. suñ koy jël baax na ci baax na ci ñoom baax na ci ñoom waaw donc yooyu daal moom baax bokk na ci saafara yi nga xamante ni moom mën na ko saafara d'accord loolu yaakaar naa leer na kon kon di ñaan rek xëy na ñi nga xamante ni dañuy am ay jafe-jafe. Mhm. bu ñu ko utiliser. Mhm. yàlla def ci barke. te garab la goo xam ni euh, kii rëyul. rëyul waaw euh, arbuste la bu ndaw. Mhm. comme ni nga wax tam ñu indi faux baw waaw dafa ngëroo garab guy. <laughs> comme guy comme guy gu ndaw. comme guy gu comme guy gu ndaw si yoo ngëroo xam ornemental tam xëy na am na koy utiliser. ci mooy yi def ci fleurs yi seen. fleurs yi waaw dañ koy utiliser. loolu am solo kon ñu xam njëriñam. effectivement kon li ñuy def mooy jox rendez-vous ñi ñuy suivre. ba vidéo bii di ñëw ci benn huile essentielle boo xamante ni euh, di nga ñu wax ban la après wax ñu tam lan lay jëriñ ci wér yaram. fàttali ñu tamit nan lañ koy utiliser. incha allah ba neexee yàlla. jërëjëf professeur merci jërëjëf. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ana ñi bëgg seen doom jàng alquran ju sell lool waaye itam ànd ak yarub lislaam bu wér lool. daaray alquran yi nii ji wuyoo daaray Serigne Modou Gueye Pire nekkoon jàngalekatub alquran bu ñu ràññee woon lool. waaye itam njiitu daara ji ji wuyoo ci ki nga xam ne moom moo di docteur Ousmane Ndiaye nekk itam ku ñu ràññee lool fii ci réewum Sénégal moo waral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 ngir sa doom mën al jàng alquran ju sell lool te wér képp koo xam ne nag bëgg ngaa jokkoo ñoom wóoteel ci 77 536 83 85 di leen xamal ne itam daare Serigne Modou Gueye Pire dina daal di taxaw bépp dongo boo xam ne nag amee nga jafe-jafe ci sa wàllu wér yaram maanaam ci mpaj di leen xamal itam daare alquran ji nag ma nga nekkee foofii ca ñàkkuran foofii ca kër Ousmane Diaye